dal leen ak jàmm ñu dellusiwaat ak yéen ci xibaaru fóobi gi taxoon ñu jàpp Seydina Fall Bougazali ginnaaw bi ñu fekkee ci otoom xaalis gu bari gu baaxul ànd ak loolu ñu amoon ci moom ay waxtaan yu mu doon waxtaan ak yenn ci ay kiliyaanam bokk na itam ci li ko feeñal muy seede goo xamante ne ñi ñu jàppoon ànd ak moom di ay complice am nañu ko wala wax nañu ko ci mbir mi mu mel ni àndandooru Bougazelli yi ñu jàppoon ci mbir mi yépp la ñu wax dafa mujj gën a dugal kii di député ba woon di Bougazelli bokk na ci ñoom ab xaritam bu sosoon rëkk ci moom di Umar Samb nekkoon ab économiste nekk itam leader maanaam jëwriñ bu kuréelu politique bi ñuy woowee jariñ sa réew moom Umar Samb ci waxtu wi nga xamante ne sandarma yi ñu ngi ko doon déglu ca njëlbeen dafa bañoon a wax waaye mujj na daal di wax mbir mi yépp nu mu demee ca tàmbali ga ba ci mujj ga lépp lim ci wax dafay gën a dugal kii di député ba woon di Seydina Fall Bougazali bokk na ca la mu siiwal ca kanamu sàndarma yi mooy ñetti mbir bi ci njëkk Omar Samb mi ngi xamle ne Boughazali xamal na ko ne xaalis bu baaxul bii nii yor na ci lu bari te moom sax ci la financé campagne électorale yi ñu weesu ñaareel ba moom xaritu Boughazali bii di xamle ne Boughazali wax na ko ne denc na alal ju bari ci ay miliyar i milliards ci xaalis bu baaxul waaye nag doon na ko wax sax naka noonu xaalis bi mu ci yoree ci xaalis bu baaxul itam marchandise bu baax a baax la marchandise bu kenn mënta ràññee ak xaalis dëgg-dëgg ànd ak loolu ca ñetteel ba moom Omar Samb muy xam xamle ne bu Gazali daf ko dénk ne ko moom yor na ab xaalis bu bare bari ci billet noir bu ñu defar ba pare waaye pare na pour rechanger ko ak franc CFA ca noonu ci la ko dal di proposer moom Omar Samb proposer bu Gazali ngir mu jaay ko lu toll ci un million de dollars ci un million de français CFA suñu xaalis bi mu jëndee un million de dollar boobu ci la dem ci benn Nigérien moom moo ko ko raxasal bi raxasalee ba di koy rechangé ut lu gum doon ut lu ku ko raxasal billet noir yooyu tax na mu xamanteek kii ñuy woowee Moussa Ouedraogo bokkoon ba tey itam ci ñi ñu jàppoon comme complice ak Bougazelli mu ci xam la ne Moussa Ouedraogo moomu kat ab burkinabé la waaye soxnaam sénégalaise la moom Moussa Ouedraogo nag ca jamono ja ñu xam ne ni ñu ngi koy déglu dafa mel ni dëggal na kàddu bu Oumar Samb mi nga xamante ne ab économiste la woon nekkoon ba tey itam di xarit ci Bougazelli burkinabé bi di ci xam la ne moom kat Oumar Samb moo ko présenté député bi di Bougazali te sax mu ngi ko doon wooyee tonton député muy xam la ne ginnaaw bi ñu leen présenté ba pare jot nañu wax ñoom ñaar ci biir oto bu Bougazali ca noonu ca la ko député bi di Bougazali dal di présenté marchandise bi nga xamante ne moom la yore proposé ko woon ngir mu raxasal ko ko waaye ci daje bu njëkk bi moom burkinabé bi bi daal di xamal député bi ni ko moom munta raxas xaalis bi ndax xaalis bi qualité nañu ñaari daje di waxtaan ba tey ci mbir ma ca ñetteelu daje ba ci la moom député bi di Bougazali daal di jox Moussa Ouedraogo sept billets yu dix mille francs ak ñeenti billets yu cent dollars ngir mu teste ko pour su ko teste raxas ko bu raxas bi setee ñoom ñaar ñu mën a ànd liggéey ci nii la mbir mi tàmbalee ci seen diggante ñoom ñaar mu joxoon ko sax ab dig daje ne ko nañu daje ca l'Assemblée nationale ba ngir eggali fa waxtaan wa mu mel ni laata Moussa Oué Drago di ñëw di ko wan ne ko moom méccam raxas mi mun na ko lool ca lañ ko jàpp moom Bougazelli fekkaale ca moom mboolem xaalis bu baaxul ba mu yoroon ca otoom mu mel ni lii ci ay seede dolleeku ci firnde yu ñu amoon ci ne bu Bougazelli dafa taq ripp ci mbir mi gën naa yokk mu desandi ñett ci yeneen complice yu ñu jàppoon itam naka lañ gisee mbir mi ak lan la wax ci mbir mi mu mel ni l'enquête bi ba tey mi ngi wéy ndax mbir mi yemul fii am na ñeneen taq ci ñëwaat ak yéen